kilifa bi ñu ne affaire passeport visa la def sama benn xarit mën na ma seede mu génn mu ne day génn ma ne sama copain bi billaahi yàlla mën na ma seede mi may déglu ma ne ko gars yi xoolal ballon de sonde lañ ko dóor danañ ko doggali bu tontoo parce que man li tax ma wax loolu man xam naa ko te li may wax nii. na ci rappeur yeeg ñeneen ñëpp bàyyi xel mooy que ne affaire bi kilifa c'est une porte d'ouverture c'est une fenêtre ci ñëpp la ñuy ñëw parce que kilifa liñ koy dama bëgg gars yi comprendre baax na kilifa liñ koy jiiñ nii kenn setu ci amul benn rap quatre vingt dix pour cent du mouvement hip hop xam nañ affaire bi quatre vingt dix pour cent du mouvement hip hop man nekkoon naa ci mouvement hip hop du bu sew nag mais am na ñu ma xam quand même loolu baax li ma leen di wax. te du bëri ñu ci wax kilifa li ko état bi tiiñal nii pour indi muy stratégie la dama commencé ci stratégie bi mooy à chaque fois wàccee nit wan sénégalais yi que kii di wax du dara mook ñu na yem Sénégal nag bu ñu demee ba ñëpp état bi wàccee leen ni ñoom ñu na yem jéem nañ ko ci lim naa sànq lépp mais dama bëgg léegi dugg ci fond wu man dossier bi xaw ma ci dara nag li ngeen ci gis laa ci gis mais am na lu ma ci xam mooy lii nga xamante ne nii laal nañ ko kilifa. xoolal amul benn rappeur bu nekk Sénégal quatre-vingt-dix-huit pour cent des rappeurs laa wax mouvement rappeur mouvement hip hop bi yow ma ci mouvement hip hop mais ci mouvement hip hop laa yowagum quatre vingt dix bi ci business boobu noonu la nekk te li may xam naa bu baax a baax a baax a baax a baax maintenant nag li tax ma ne kilifa réponse bi erreur la man de bu ma jege woon ñuy waxtaan neen la doon génne def na erreur dama koy ñaanal nag mu muñ te assumer. erreur am na <laughs> erreur moom am na moom du ma fi nekk di défendre Léva bu génnaatee wax leneen ma xam loolu mais li leer teleer leer mooy erreuru kilifa bi bu dee erreur la <laughs> erreur bëri na Sénégal te dina yegg sax fu gën a sori. gis nga dañuy naan nit ku lay wut jotu la day xool ci ki la jege mu jaar fa bàyyi leen ci xel bu baax te gis nga. état bi dafa seetlu ne mouvement hip hop yëpp mu ngi commencé dajaloo état bi dafa xool seen point faible li tax ma ne point faible la tey contexte bi moom moo ko def tey point faible parce que mbiru visa yi nii rappeurs yi di def ñun ñëpp xam nañ ko ah yàgg naa ah. rappeurs yi dañ koy def mbalax maa ne dañ koy def promoteur de lutte yéen a ngi fàttaliku affaire yooyu gars doon organiser ay làmb fii ay face à face fële dañ koy def yéen ngi dégg. bëri na ay sëriñ soo xamante ne ni seeni taalibe ak seeni nit ñuy yóbbu député buy jóg ñu ànd ak moom la Macky Sall booy voyage ñu yóbbaale ko ministre bu am voyage ñu dugal ko ci biir la bëri na ay député ay ministre seeni yenn militant seeni yenn doomu tànta doomu bàjjan doomu rakk doomu mag dëkkandoo nii dëkkandoo na la foofu la ñu jaar ñu dugal leen ci ñu dem léegi nag foofu la amee solo mooy que ne fi ñu li ñu jiiñ kilifa nii ba ñu ne jàpp nañ ko bu fekkee dañu jàpp ne ñaaw teef la kon nañu jàpp ne quatre vingt dix pour cent du mouvement hip hop ci ñaawteef boobu noonu takk nañ ci. man bëriwul ñoo xam da nga leen ci mën a seppi ñàkkul nag parce que exception day am ñoo xamante ne nii mosuñu dóor dilu visa parce que dilu visa yi c'est très simple. ci kaw ba ci suuf su Ndour ba ci suuf nag Youssou Ndour ba ci suuf damay jël musiciens yi de manière général hmm? m yi de manière générale. c'est très simple am na fi benn musicien hip-hopeur boo xamante mos na am cinq groupe cinquante plus de cinquante sax lañ wax cinquante membres yu mu yóbbu looloo ko may sax yenn doole yi xam nañ ko jilli Suède bi fi amoon rappeurs yi di ci ki yooyu yëpp xam nañ ko li tax may wax lii mooy fa lañ jëm parce que seen point faible la tey parce que jamono juñ koy def du woon problème état bi xamoon na ko gars yi noonu lañ doon dilee di jox ni gars yu foofu lañ jaar tukki mais dañuy naan un phénomène un fait devient un phénomène lorsque lorsque les gens en parlent maintenant aujourd'hui les gens en parlent moo tax gis nga am na posture boo xamante ne nii ki ki euh, kilifa jël na ko bu ko yenn rappeur yi jëlee état bi jekku leen day ñëw dal seen kaw te da leen di jàpp parce que bëriwul ñu ko ci deful li kilifa def mooy am nga possibilité par exemple je vous donne un exemple man dama yor benn groupe musicien wala dama nekk benn chanteur ñi xam Europe xam nañ li ma wax da ngay dem ci benn café man am naa ay copains yor café ñi yor bar ñi yor discothèque je connais j'ai un bu nekk Espagne yor discothèque damay dem ci moom na ko booy dóoral ma contrat ak diw diw diw xoolal Issa artiste bu mag Sénégal nii kërëb kërëb ma def benn clip ma jël la dama lay indi soirée discothèque nii xam ngeen lu fi nekk defal contrat day ñëw waa ji dem déposé ambassade ne tel laay dem ambassade bi xam na ne discothèque boobu il existe c'est fii nii nii nii nii gars yi defal leen contrat waa ji ñëw waa ji indi teg teg teg teg teg fekk man man kese maay woy ma indi diw paate mu fay ma ne moom guitariste la ma indi diw nangam sangam preneur de son wala affaire demee noonu kii technicien kii électricien kii guitariste kii nangam kii nangam kii sangam kii awukat kii awukat encaissé encaissé encaissé encaissé encaissé encaissé yóbbu leen ñu tukki yaa ngi dégg. noonu la di biri te ñoom ñëpp koy def moo tax ma ne posture bi nga xamante ne nii gars yi war nañ ko jël bu ñu braqué woo gars yi ngi ñëw seen kaw parce que li taxoon ma ne copain bi kilifa li ko def nii ballon de sonde la ñu ngi dal ci kawam mooy bàyyi leen ci xel kilifa ki ko teg dil du isaa keneen de xaritam moo ko teg dil ku ko xam jàmbaar ki la xam bu lay teg dil processus la du ñëw teg la dil mu ne réel ku la xamul mooy ñëw teg man deg man man mii Issa ak man bu ma doon teg nit dil ku ma xamul mën naa ñëw teg ko dil affaire bi jàll wala du jàll mais ki nga xam man dama la xam wala da la teg dil bu dee ànd naa ak sama xel doo rëcc moo tax loolu moo waroon nekk premier réflexe mooy ki teg kilifa dil ku xam kilifa la xam bu baax li muy def foofu la erreur génn kilifa bi nekkee erreur. parce que ki ko teg dil ku ko xam la donc du ko tel du ko teg dilu como te bu demee bay teg dil bi day teg dil bu leer man ci li ma jàpp donc ça veut dire que ni ñu xamee bu kilifa lépp lu takk ci kilifa di def ni kilifa di def am taxawaay bi kilifa am te nekk ak kilifa ci même condition yi kilifa nekkoon ci mouvement hip bi di ko def bàyyil sa xel que ne gars yi ñu ngi sa garde moo tax warul nekk xeexu kilifa man pour man li doon rey affaire bi jàppale kilifa moo doon mouvement hip hop bi daja dajale les artistes dajale reconnaître que ne affaire visa ci biir aar bi daf fi nekk te loolu noonu mbokk kilifa yi ak ñi bokk ak moom aar bi ak ñi nekk ak moom ñoom ñoo mënoon a toj abcès bi dañuy wax toj abcès maanaam rey rey problème rey góom bi ci biir parce bu dee kilifa li mu def déli la keroog lañ ko jël kaw ak jàppee ko fi ñàkk fayda bu doon lii nii loo xamante ni état dafa jóg pour toog mu am ci dara jàpp ko da koy jàpp tëj ko mais wutuñ ci dara mooy li ñu doon wut ci Ousmane Sonko mooy dem na salon de massage dem na salon de comme débat bu amee ñu toog ak waa kii leen dem na fii dem na fële. léegi nag man pour man loolu moom moo doon stratégie bi te loolu weesoogul parce que du yéen kese yéen a koy def. parce que fii Sénégal dafa tuuti ñëpp xamante ne ni ko rappeurs yi di jëlee di yóbbu yenn sénégalais yi ci kaaw bi noonu la ko député yi di defee noonu la ko ministre yi di defee noonu la ko directeur généraux yi di defee noonu la ko Macky Sall di defee donc c'est un problème boo xam c'est généralisé soit ngeen booloo ngeen xeex ko te xam ne li yëkkati état li yëkkati état. du yàq kilifa wala yu demee noonu li yëkkati état mooy fexe ba ñi mel ni kilifa ak ñi mel ni ñeneen ñi parce que maa ngi dégg ñi ñi naan li maître maître El am na dëgg man xolal dàllu kilifa xolal moo ma gënal xolal junniy maître El Hadji gis nga bu ñu defee erreur des ci kilifa erreur bi mu def on va se leurrer parce que nit ñi mun nañ ma benn affaire mooy nit ki li ngay woote danga koy nuru man duma fi nekk di défendre défendable néew ma ci kilifa man ci xam nga ci li ma nekk bu ñu fexee ba état bu Sénégal yóbbuñu ci diw mi de doxaankat la moo man a yem man mi ngeen jën seeni milliards ma dóor ko man mi leen tabaxul man mi yor seen école yor seen jàng yor seen lekk yor seen naan yor seen sécurité bu ñu fexee ba état gëmloo ñu que ne man jugement bi ngeen di porter ci man porter leen ko ci un jeune rappeur boo xamante il s'indigne ci gouverne si mal gouvernance bi bu boobaa nag bu boobaa nag ñoom li ñu bëgg dinañu ko am nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax parce que encore une fois nguur Macky Sall li ñu bëgg mooy Sénégal ñëpp a fii ku ngeen fi gis muy wax rek dóorkat la ku ngeen fi gis muy wax rek moo ñu na yam moo tax maa ngi maa ngi leen di ziar di leen di leen bëggee di massawu voilà di massawu kilifa voilà di massawu kilifa naan na ko ñi ànd ak moom nañu solidaire ak moom voilà nañu solidaire ak moom man loolu laa gëm man naa nag man duma fi excuser benn sénégalais boo xamante ne nii li nga def xam nañ ne du yoon yaa ngi dégg mais man je ne juge pas une personne sur un fait voilà je sais que kilifa quel que soit ce qu'il bu fekkente ne def na ko mënuloo di woote fële di kiloñate kii mais il a quand même impulsé benn dynamisme boo au niveau de la jeunesse boo xamante ne nii je pense que amal na njariñ Sénégal te loolu duma ko dàq aussi. du ma nangu lii mais du ma dàq lale lenn rek lañ mën mooy nag ñëpp gën a defaru moom na defaruwaat mais ñëpp gën a defaru gën a ñàkk seen bopp te gën a solidaire suñu biir te gën a moytu rek voilà sénégalais aussi gën a am compréhension ci ñi nga xam dañ leen di jàppale comme mënuñu dara aussi ci ñi nga xam ñu ngi yàq nañu am compréhension foofu noonu waxuma ñuy baale lépp nag wala ñuy bàyyi lépp mu jàll mais bu ñu ci taxaw bu ñu ci taxaw voilà maa ngi leen di ziar di leen bëggee jaa ngeen